sa démb xam xam sa démb xam xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaane tey siin siin nag moomoon boppam li mag ñi takk fukkeelu xarnu ak ñeent ca ko sos tase gelewaar may sa waali maane jóge kaabu ca Gine Bisaawu ànd ak njabootam ginnaaw xeex bu metti ba amoon turban te nga xam ne ñaanco yi ñoom ñoo ca amoon ndam ci atum junni ak ñett téeméer ak fanweer ak juróom gor ñi nga xam ne ñi ngi siin dalal nan ko mu ñëw rek mel na ku bokk mel na ku fa juddoo doon xelal lépp ci wàllu yoon mbootaay gi nga xam ne ñoom la lamaan yi jiite woon ba mujj ñu teg ko buur booba nag siin ak saalum génn nañ ci jolof kajoor it génn na ci bawol génn na ci waalo génn na ci gannaaw ba nu xeexee dànki ba am ndam ca kaw buur ba jolof ci digg xarnu fukk ak juróom benn waaye gis ngeen siin dafa mas gëm li ay maamam gëm gëm diine yi nga xam ne diine yi nit ku ñuul la waaye bu ñuy wax siin dañ ciy takk ñaar ndax tàgge bu na am na jàppal diw ñoo ko jiite woon ana ñooñu ñana xanaa dañuy wax rek kumandoo fen faam ak juuf mi nga xam ne ginnaaw bi maada sinik Ama Diouf ñi laan fay Diouf génnee àdduna atum 1853 moom moo ko wuutu ci ngàngunaay bi Kumba Ndofféne nga xam ne dafa am lu mu seqoon ak Jolof ak Kajoor ak Bawol ak Waalo ak Saalum ñëpp xam nañ ne fu doomi buur daan jaaxle ak ndeyam ak njabootam dalal na la ca siin làq la yiir la loola sax taxoon na gouverneur tubaab bi di Pinet-Laprade daan ko woye buuru buur yi waaye xam nga siin dafa amoon jamono bopp dafa am ñaari ñaari musiba yu ko wër ci ñoom liñ jàppoon waa siin benn bi mooy Maba Jaxu Ba mu war a dal ci seen kaw ngir ñu dooni jullit bi ci topp mooy tubaab bi ne moom du leen may jàmm mukk fi ak séeréer yi néew ñu nemm waaye buur siin moom bi Maba Jaxu ñëwee dafa dal ci koom ànd ak nitam waaye keroog dañ leen a bett ca Mbindo Ngor ginaaw loolu ñu joxante ndaje fukki fan a juróom-ñett ci weeru sulet 1867 muy xeex bu mag ba nga xam ne moo amoon ca Fandaan cun cun ngeen dégg ñaan xare ba ca cun cun xale booba lañ tuddee xeexub somb ba xare booba ca la Maba Jaxu wàcc bakkanam ca la génnee àdduna waaye xam ngeen ne way wu mag wiñ daan way kumbandoo fenn faa mag juuf tey mooy tagg bakk wu mag wi siin di bàkkee boppam te way woowu boo ko jëlee boo demee ba ca biir da nga dégg séeréer yi jël ko def ko seen bàkk bopp naan fañ na ngóoroo roogo deb na xulum fañiñ fañ fañ fañ te wàccaaca fañiñ fañiñ fañ fañ fañ te wàccaaca boo ko tekkee ci wolof mu ne loo bañ bañ nit loo ko iñaane iñaane loo teg-teg ay pexe ngir mu yàqule loo ko jéem a yàq yàq munoo fexe ba li ko yàlla wàcceel dencal ko ko mu jot ci kon daal mën nañoo jàpp ne bàkk woowu dafay wax ci séeréer ne loo bañ bañ nit mënuloo ko dara bu yàlla ànd moom Coumba Ndoffène Fam ak Diouf nag la ñuy waxtaanee ndax moom booy wax taarixu siin dafa am foo xam ne dafa toll ndax li mu xeex ngir aw askanam moom boppam ngirit li mu xeex ngir aw askanam am kaaraange waaye tubaab bi dañ ko bett rey 1871 sa Joal fekk mu demoon fa di wattu ay toolam kumandoo fenn faam ak juuf dañ koy jaawale yenn saa yi ak turandoom kumandoo fen fandeb juuf moom mi nga xam ne toogoon na ci ngàngunaay gi 1898 ba 1923 Fandeb boo ko déggee ci séeréer mooy bu ndaw kon man nga xàmmee Faamak mi nga xam ne mooy taaw maanaam bu mag nga xam ne moo doon nijaayam ju mag kumandoo fen Fandeb booy jëlaaw askanam mi ngi bokk ci askanu Buré ñi laan Juuf moom nag ginnaaw bi Mad Mbàkke Ndeb Njaay wàcce moo ko wuutu dugg boobu tubaab bi duggoon nag ci pal gi ñuy fal buuru siin naqari woon séeréer si ndax ñoom Mad Kumando fen fan Ndeb lañ jëloon waaye tubaab bi ngir bëgg lim bëgg am mu xaaj siin def ko ñaar jël Mad Kumando fen fan Ndeb ne moom moo jiite penkub siin jël na ka nga xam ne moom lañ bañoon a fal ne moom moo jiite siinuk sow waaye loolu séeréer yi nanguwun ko ndax séeréer yi ñoom dañ ne tubaab bi na dagg siin nu ko neexee waaye mënut a dagg suñ xol yi ak suñ ngëm ak suñ bëgg-bëgg ñun séeréer yi lu tubaab bi wax baax na waaye faale wun ko nit ñi nag nanguwun fay galak di impôt lu dul maat kumbandoo fen fàndeb nit ñi nanguwu déglu ku dul moom moo tax tubaab bi bi mu demee ba sonn mars 1899 mu def li séeréer yi bëgg waaye bi nga xamee ne jóg na dal ci seen kaw ndax séeréer yi booba xeex rek lañ bëgg séeréer yi làq seeni doom làq seeni bàyyi ma làq seeni jabar jël seeni ngànnaay keroog tubaab bi ba muy daw tayu ko diggante tubaab yi nag ak gor ñi nekk siin métti lool keroog bi nga xamee ne kii nga xam ne mooy yor siin Saloum di Charles Lefiliatre bind na Léopold juuf mi nga xam ne moo doon loxom ndeyjoor bu Mad Kumba Ndoofeen bind ko ne ko siin amatul buur daada cay teg ne ko ki ne siin te tuddee ko buur du dara lu dul ku jiite ab dëkk waaye amatul cëru buur waaye tubaab bi keroog ba mu defee loolu séeréer si jóg siin jóg bañ lànk doon wenn say tubaab bi dellu gannaaw waaye gis ngeen de madd kumbandoo fenn fandeb moom lim gëm la gëm rek taxaw ci ŋànk ci ba bi tubaab bi bëggee tas gox ba ne day jël ab jàngu def ko biir jooyin mu ne ko déedéet wàcc ko fam ne waaye doo ko dugal fii ci biir siin loolu moo tax donte diine maamam la gëm keroog bi tubaab bi ñëwee ci sëriñ Touba jiiñ ko ne ko da ngay dajale ay ngànnaay ngir indi xeexub diine maanaam jiyaat 1903 ginnaaw bi nu ko jógee ca yóbbu bi ñu ko yóbboon bitim réew buur siin dafa taxaw jàkkaarloog tubaab bi nekko li nga wax du dëgg li ngay jiiñ sëriñ bi defu ko. ndax tegoo ko fenn looloo tax ba bis ne tey ñi nga xam ne ñooy donay Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke ak donay Maada Sinik kumandoo fen fandeb fu juróom-ñaari fan jotee ak fukki fan ak ñett ci weeru juin ñu daje ca Daaru Marnaan wàññeeku daje ca jaxaaw ndax ba loolay am Sëriñ Tubaa Daaru Marnaan la ne ba loolay am jaxaaw mooy péeyub siin lii daal mooy jaar-jaar yu rafet yi jaar-jaar yu mag yi mën a jàpp takk ko ci siin ba tax na ku ma moom boo koy topp way yéen ko way bëri na waaye nan jàpp rek way wi ko Senghor way Senghor bi nga xam ne ba muy gone danaan fàttaliku ngan yi buur bi daan gane si seen kër ak seen dëkk Senghor yi bind ci taalif bu siiw naan maa ngi fàttaliku xumbeel ya daan am bu jantuy so fa nga xam ne Kumba Ndoofeen kaw asamaan la bëggoon dagg laxasaay bi muy laxasaayoo doon buur bi nu fal loola doy na way kon siina ngoog siin ca njàmbaar ga siina ngoog siin ca ànd ga siina ngoog siin ca ngor ga lii mooy taarixu siin wala lenn ci taarixu siin ci gàttal xam sa démb xam sa tey xam sa xam sa tey est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Cœur la Maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur professeur Ibrahim Awan, direction artistique, présentation et réalisation Dr Massambeguei, assisté de Abou Soumaré, Régit Ousmane Faye de la Factory. Technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouillefal Goethe Institut.